jërë coowal covid bi fi woon pënd bi wéreegul journal bés bi le jour mi ngi ñuy xamal ne am na ay ministères yu ñu joxar bi baaraam tuuma di wax ne dañoo def ay nju njaaje ca xaalis bañ leen joxoon ngir ñu war cee xeex mbas mi mu di fond force covid ci rapport bi waa cour des comptes def août 2022 yéen bi nee nañu ca lañ gisee ay léexóor ak i jalgati gis nañu ay mbir yu teyum xel ci ministère de la santé gi Abdoulaye Diouf jiite woon gis ko ci Pyongyang yéenekaay bi nee nañu nangu na violation ga fa gaañu gis ba doon sàkku ci vérificateur yi ñu dawal tolérance moom Mamadou Ngom Niang daaj bu ministère des bés bi le jour xamal nañu ne taqal na ministre Matar Ba ci njaaj yi gaañu gis ci ministère ba ministère du développement industriel petite ak moyenne industrie gi ñu doon tudd ci rapport bu Cour des comptes bi direct ci news mi ngi ñuy wax li ca xew ubbil yéenekaay bi li mu ñu njëkk xamal moo di ci yéenekaay bi mi ngi ñuy CNH ak Carmens ñoom ñëpp livré nañu masques yi ñu leen commandé woon ministère bi fay leen seen xaalis ba mu mat sëkk amul kenn ku ñu ci amel benn dërëm ba fa vérificateur yi demee liñ leen doon moo di lu tax ngeen di fay société yi ak argent liquide maanaam xaalis xobet xobet waaye bu weesoo loolee yéenekaay bi ne nañu gis gisuñu fag détournement gisuñu fag surfacturation l'observateur moom xëy di jàngat lu ñu bari seetlu ci réew mi nee nañu saa su nekk ñuy gis ay audit yu ñuy def ci ni ñuy yore corps de contrôle yu état dëkk ci di def ay rapport te ñi ñuy tuumaal yore ñu bon ci liñ leen dénk dara du leen ci fekk Jacques Habib Sy ne woon jamono directeur exécutif bu Transparency International ne waa l'observateur lu jiin njaaga ci impunité am ci réew mi njiit réew mi bu corps de contrôle ci seeni rapport moom la ñu ko yóbbul danañ ko wax ba wax ko ñu ñu war a topp ci yoon te du mujj fenn fudul xëy xëy di dégg ay promotion ki ndombal tànk ci ñi tudd ci rapport bi rapport bu mujj bi cour des comptes def ci doxalinu xaalis bu fond force covid bi fa mu nar mujj mooy fa yi ko jiitu mujj mu di ca tiroir yi maxe fa màgget fa màggetum lëndëm wala fi nekk ko dajul mu daj boppam le mandat nañu moo tax entreprise yi ci réew mi ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ñoom booloo nañu taxawal ci seen biir kuréel gu ñu tuddee club pour cent de préférence nationale li ñu bëgg ñoom ñaar fukki chef d'entreprise ak juróom-ñaar yooyu yéenekaay bi nee nañu mooy léegi bépp marché bu nguur gi amati mu bañ a jël lépp di ko joxe entreprise étrangère mu di entreprise yi fekk baax bitim réew nee nañu nañ leen koy séddale jox yi ci des ñu jox ko entreprise yi ci réew mi journal la mandat dolli ñu ci ne kuréel gu yes googee di club cinquante pour cent préférence nationale bii di Abdoulaye Sylla borom Ecotra moom la tànn ngir mu jiite ko njiit réew mi Macky Sall àdduwaat na jëmee ci troisième candidature gi ñuy jaaba jonge ci réew mi yëral xët mu njëkk soleil national président national di Macky Sall ma fay xam le ne li muy def 2024 yi mu séq ak waa New York Times moom président de la république bu Sénégal di Macky Sall nee na yoon li mu ci wax dafa leer débat juridique amu ci mu ne nag lu ci mën di am buñ ca yeggee dana ko yeggee waa réew mi waa PUR seen ñaari député yi am lante ak yoon journal yi xëy nañu ci dellu si ci ñoom le quotidien mi ñu wax ne député Massata Samb ak député Mamadou Niang yi doon mbéjaka wéq député Amy Ndiaye ñibbi ci assemblée ca dikk libération nañu bu weesoo li ñu leen di toppee mu di tuumay dóor nit ba gaañ ko ci sa coobare bopp dolli nañ leen ci tuumay faat bakkan di menace de mort journal bi nañu démb bit ba ñuy jano ak enquêteurs yi ñoom ñaari député yi nanguwuñu woon a tontu enquêteurs yi ci seen laaj ndax nee nañu dañoo am immunité parlementaire lise ko mel ne ku naan ñu seen immunité parlementaire googe nar na leen a réer mër ne ñoom ñaari député yi seen yoonu kaso taxaw na